ginnaaw njiitu réew mi président Macky Sall ba mu yokkee état d'urgence bi ca dat ba mu ko yemale woon a loolee naka indi ak njàqare ci askan wi rawatina chauffeur si. boo xoolee lu mat ay 3 mois nga toog ko ba pare ñu yokkaat ci un mois xam nga lool moom dafa metti waaw dafa métti trop instant bi nii chauffeur yi fu nekk ñu ngi fay dem di màjjal xam nga loolu moom wax dëgg yàlla métti na trop. borom kër bu ndaw yaakaarut kenn ku du dooleem ji du xëy du joxe dépasse chaque jour. ko jóg fee da nga joxe sa dépasse parce que chauffeur bi du la xaar kon boo waree xëy di joxe dépasse chaque jour sa heure bu demee ba egg ci délai boobu ñu yokk ko def ren na metti ñun li ñu bëgg ñun chauffeur si ku ñu dimbali ndax ñun amuñu lu oto yii ci lu fas yéenee dund nu fen du nu njaaloo duñu naan ci la liggéey di yor suñu njaboot amuñu lu dul suñu njaboot. état d'urgence moom wax dëgg yàlla buñ sañoon bi mu matee trois mois ñu daggal ko da beeg dëkk bi commencé waat ndax wax dëgg yàlla metti na lool lool lool. nga ñetti weer chauffeur bu toog 3 mois yoo xam ne liggéey métti na te boo xoolee ay borom kër ngi fi am na ñoo xam ne dëkkuñu fi ay étranger lañ ñëw fi mënuñoo génn lu mat ñetti weer nga toog tëj sa place borom kër yi dem nañ ba yoratuñ ñu joxe surtout ñun chauffeur si nga xam ne kenn jàppale wuñu ndimbal li ñuy joxe Tuubaa dégg rek lañ ci amuñ ci dara. metti lool foo ko takk ci ay coono rek mu romb ko xamoo ne ab chauffeur boo xam ne si yor ak njaboot war a xëy liggéey indi njaboot gi. nga toog lu ma trois mois yoo xam xëyoo gontoo liggéeyoo dara amut nga def ko ci ndigal ndigal lu mënta ñàkk rek waaye lii lu ko gën a métti ci kaw suuf amut. état distance bi ni ma ko gisee métti na parce que ñun ay xale lan te yaakaaruñ kenn ku dul yàlla ak suñu doole ji liggéey rek lañ xam ñàkk jariñu pendant trois mois ñu ngi toog suñu biir kër yi génnuñu demuñu fenn amuñu leen lu ñu def suñu njaboot la ñu yor nag ci liggéey rek lañ leen mën a dundale mënuñoo sàcc mënuñoo fenn ci liggéey la leen mën a dundale. foo jëlee client dañ leen dem leen toog seen kër boo toogee looy def da ngay toog rek jàpp sa bopp amul fenn foo jëm lépp ci àdduna dana ko jënd da ngay wër di yalwaan. su ne nit ñi yorutuñ dara ku yoru loo ku yorut loo lekk mënoo jël taxi nit ñi yoruñu dara yow da ngay xëy suba ba ngoon jot su baree bari ñetti client nga yeb loo xamante ni boo xëyee boo solee 3000 francs mënoo mënoo koo lakk amoo foo ko lakke loolu xam nga ne du liggéey borom nekk yoo xam ne yoruñu dara ñu ngay jël kës ñiy jël taxi ak kës nag ñu amul pexe la ku ci am pexe doo jël taxi. wax dëgg yàlla day ji metti na trop ci ñun ndax ñun ay safoor lan te wax dëgg yàlla lu mat ay ay trois mois ñu ngi ko toog maam ni demu ñu dikkuñu ah te yàlla loolu moom dafa métti trop ñu ngi dem bay di màjjal di yalwaani te xam nga loolu moom dafa métti. bon amuñu client ndax les problème mooy fii na ni ñëpp dañuy teel a di wàcc ah maam ni ay ay quelques clients ngay am rek daal di wàcc xam nga loolu it wax dëgg yàlla dafa métti. waaw mu métti la trop wax dëgg yàlla te président waxoon na ni léegi dañuy jox ay ndimbal ah te ndimbal yooyu daanaka ñun gis gisuñu ci dara ñu safoor yi nekk Touba moom wax dëgg yàlla sonn nañ trop moom. sëfër si nag di xam xamle ne jamono yi moom métti na ci ñoom lool ndax kat amatuñu sax client bu ñu yóbbu bay am lu ñu la woo ñoom ak seen ko njaboot ñuy ñaan nag ngir ñu bàyyi leen ñu sàmmante ak sart yi leen digal te takki masque dem liggéey yi ndax ñu am lu ñu yóbbu ca kër ga. waaw ma si xalaat mooy ñu bàyyi nit ñi ñu dellu ci seen activité dem liggéeyi léegi kenn ku nekk takk sa masque ah comme ni ko yeneen réew yi defee quoi ñu takk suñu masque kenn kenn dem dem liggéeyi quoi loolu moom ñu noonu la ko gisee ndax loolu daal mooy mooy dimbali quoi. clients yi waroon na ñëw ñu ngi ci biir kër yi toog fu ñu jëm amuñu fu ñu jëm amuñu lu ñu def man mii di wax ak yow man laa Dakar laa nekkoon mais trois mois maa ngi fii ci sama kër fii ci Touba toog te jii kër sóoru laa yendoo di ñaan ay fukki ki ñaar fukk ak fanweer su ma ko amul sama waa kër du ñu lekk du ñu naan. kon nag li ñu war a def mooy bàyyi ñu ñu dem liggéey kenn ku nekk mën a dem liggéey def sa njaboot. ñu xool nuñ ko yàlla ma dem beeg dëkk bi ñu fexe ñu nit ñi respecté masque barrière yi xool personne yi ñu yëpp ñu limité ko mu bañ a bari su ko defee ñu mën a commencé dem beeg dëkk bi moo gën ci ñu laay lii moom wax dëgg yàlla. bàyyi nañ ñu góorgóor na ca lan ne nekkoon ku nekk da waxee am loo yóbbu sa kër ñeen téeméer wala juróomi téeméer nga yóbbu ko say kër dina sa ak njaboot waaye léegi ñu baadoole képp ñoo ko yëg bu dee ñoom ñooñu kenn yëgul ni couvre-feu am na li métti na trop ñu ngi ciy sàkku ndimbal nag képp kuñ ci mën a jàppale ngir yàlla ñu def delloo fa nekkoon ñu dimbali ñu ngir yàlla jëm Sëriñ Tuubaa Mbàkke jamono yi ñu toll nag chauffeur si ñu ngi jooy di yuuxu walu ñoom kat ñu ngi xam xamle ne sonn nañu lool. comme médecin bi nee na kenn ku nekk mën ngaa si sa bopp ba doo wàll keneen keneen du la wàll nañu tegal sart yooyu ñu dem nekk ci dem liggéey te du bàyyi ñu mais nag bu fekkee ne dangaa ngaa jël bukki suuf ci sa war nag di dàq ak lëkk doo ko gis loolu la.